bagage yi nii. surtout loo xam yow xam la la ko waroon sax moom. Mhm. mu ñëw sol tenue comme le comme le président comme yow tu espères tu aspires devenir un député. Euh, de mhm. la république yow ci aspir euh, être euh, fële ci assemblée nationale pour défendre peuple bi. Mhm. kon moom moom moom genre soldat la rek la bëgg nekk député soldat la. parce que tey bu jiyee yi amee yow da nga waroon taxaw biir assemblée waxal fa askan bi wax lan la yan matuwaay la góor gi war a jël pour saafara euh, métit yi nga xam ne dal na euh, suñu mbokk yooyu ñu leen di masaw bu baax mais pas chaque chaque fois rek ngay bëgg di tiire ci ci guvernement bi gis nga bu jiyee dalee ci ci ab population ñu ñëpp ñu bokk ko. Mhm. ñun ñoo war a laxasoo même goj dem euh, dimbali askan bi man dama rafetlu woon sax tey même bu président doon dem. même bu leen invité wu la mu bañaat leen invité nekk ci opposition bi sax ñoom ñu sol seen tenue dem ne kat ñuy ñëw mastawu askan bi parce que ñun ñoo ko bokk jéye bi ci ñun ñëpp la dal suñu ay doomi sénégalais ñoo fa nekk di dund lu méttee métti fu mu toll nii te yow amaana yaa ngi sa kër euh, amaana yàllaa ngi lay suturaal yaa dara dalu la te amaana ñi dal ñooñu mën nañu mën nañu dal ñun suba yàlla mun na fi ñëw def fi benn jéye boo xamante ni ñaanuñu ko yàlla mais kon lu tax politiser affaire yi ay Macky Sall soloon na ko mais c'est normal costume bi Macky Sall doon sol muy costume président bi moom la président Bassirou Diomaye Faye sol tey xam nga ab équipe boo ci nekkee euh, Fatou di mm. football équipe boo ci nekkee di football bu ñu mayo bi maillot bi waa équipe bi sol même bu déwénee bu fa waa équipe bi nekkul bu ñeneen ñu bees ñëwee maillot boobu la ñuy sol kon tey maillot euh, président costume noonu sol muy le père de la nation bi di Macky Sall nekkee woon fii Senghor nekkoon fi Abdou Diouf nekkoon fi Abdoulaye Abdoulaye nekk fi jóge fi mm. maillot boobu tey costume boobu la président de la République Diomaye sol mm. ma jàmbal bu doon romb tey ci mbedd bi le président Bassirou Diomaye Faye mu neex ko mu naxandi ko day taxaw xaar ba président romb ba pare. kon foofu ngay xamee dayoo nit ki nit ki da ngay respecté nit ak loo doon doon opposant nañu nañu opposé nañu opposé wu ci euh, dans les règles de laar wax lan mooy njëriñu askan bi su askan bi nekkee ci nattu nag ñu boolandoo àndandoo saafara loolu te delluwaat ci ci ci mbir mi loolu lay mm. wax. voilà saawal. bon man réchauffement climatique wala ci lu mel nii dafay lié ak ni nga xamee ne moom la euh, climat bi di kii dafa am lu koy waral. COP 21 il est temps surtout ñi dëkkee Afrique wala bu ñu koy amal ñu wax les grands puissances puissance dëgg loolu sax ma jàmbal am na lu mu ci participer ku fekk montagne nii faar Mamel nga ne ci dëjji gratté maanaam xobbati euh, montagne bi teg bu de euh, environnement bi euh, yàqoo ci nga bokk mën naa yàqoo Sénégal nag fii nga yàq mu dem jox ko waa Haïti lii nii bu ñu fàtte ne catastrophe naturelle daloon na Haïti nga xam ne am ñu bëri ñu faatu. bàyyi jamono jamono Abdoulaye Wade jël ci ay quelques personnes. Mhm. loolu nag bu ma koy wax mu ngi mel ni fu mel ni Émirats arabes unis Dubaï maanaam fuuy beew yor xaalis ba xamatoo noo koy def dem ba ci digg géej gi créer fa benn île mais xam nga dafa am loo xam ne phénomène naturel la xam nga kaas bi fii soo nee nii sotti ci ba mu fees. may joxe exemple. nga def nii gis nga ko nii day tuuru xam nga lu tax lii nii phénomène lii ma def nii ba mu tuuru mooy li nga xam ne moom la Dubaay def moom la Dubaay def dem ba ci digg géej gi mu créé fa île parce que dañoo fuuy yëg seen bopp ne nee nañ dañ ko def sous forme de tendarme sëkk loolu nga sëkk dafay pàllax gis nga comme ni mu tuuroo nii parce géej gi. trois quarts mondial àdduna bi boo ko jëloon lépp te àdduna bi yëpp benn quart bi benn bi képp bu boo ko nekkee keroog benn quart bi képp moom mooy suuf si li ci def yëpp ndox la léegi nga ñëw ci ndox mi def noonu ak montagne glace yi nga xam ne commencement ak couche de zone bi nga xam ne usines yi maanaam différents yi ñu ngi surtout Chine nag ak États-Unis kenn demul ñu des ak Inde ñu ngi polluer l'environnement ba pare ñun bañ ñun suñu développement ñun Afrique ñu bañ ñu te ñoom ci polluer lañ dëkk maanaam ay centrale nucléaire yoo xam ne nii mi ngi mi ngi dox am ci yoo xam ne sarbon lay doxee te baaxul ci couche zone bi loolu di waral fi nga xam ne moo gënoon a sedd ci àdduna bi nga commencé montagne glace yi di wàcc mais am ay borom alal yu fuuy yuy defar ay îles artificielles à ne pas finir mais loolu moom la ma jàmbal def nii ci faaru Mamel bi la mu fa laal ci foofu volcan buy nelaw la maanaam moom amul lu muy maanaam genre majambal yi ci boppam dañu war a yegg foo xam ne dañu leen a war a traduire devant la justice muy nag président ba joxe foofu bañ xobbete ko ak majambal mi fa dóor immeuble la maanaam toj immeuble doyut dafa war a fay ay pénalité yu bëri te la ko war a defaraat ba montagne mi nekkaat ñun moom moo ko war a defaraat maanaam daf koo daf ko daf koo tal moo tax mu koy wax mais man man ci boppam damay laaj makkeew yëpp environnementaliste yëpp ñu porter plainte ku mel ni ma Madiambal parce que jëwriñ boo demee ba ci faaru mamel bi fee la mu xobbi mais loolu da yaakaar na yow li nga ko jëlee ci suuf si ni montagne yi da lu tax yàlla def ko fi wax na ko ci alxuraan nee na man maa taalal suuf si def ci ay montagne montagne yooyu dafa bokk ci liy stabiliser suuf si mm-hmm. yow nga ñëw xobbati ko maasale taxaw da nga yaakaar yow li nga maasale du am fu mu répercuté wu. Mhm. loolu nañ ciy xalaat da koo tal di koo xam nga dof du wocc parce que xel mi du tey yow loo gis fii mu taq moo lay tey sa xel ba ngay kii mais ku mel ne ma ja lii bu leen ko ko jàppee de. Hmm. parce que dof du wocc xel mi du tey. man kenn rek laa koy fii opposition bi yépp nag da nga leen di gis xam ne politiser wuñ ko à l'exception de Alwaxa Bougane képp nga gis mu politique mais ñoo yam Bougane politiser na ko Euh, ñu <laughs> daal di ñëw euh, ci euh, leneen mu di le président Macky Sall mi ñuy wax ne dañu ko écarté ci benn conférence bu waroon a am ca Columbia University benn soxna buy wuyoo ci turu Oumou Diallo Pastef États-Unis la daal di bokk ñuy xam ne sax moom ci post bi nga xam ne def na ko mu di rek j'ai écrit au président intérimaire de l'université de Columbia pour demander prévision de Macky Sall de la conférence prévue les 25 et 26 euh, octobre 2024. Ma lettre a été envoyée par euh, mail et par euh, courrier express. Je lance un appel à tous les Sénégalais, signez la pétition et envoyez des emails à l'administration de l'université et aux de la euh, conférence mu mel ni moom loolu la xamle euh, ne moom euh, moom la def ngir président Macky Sall bañ a sax participer ci boobule conférence Thioune. Hmm. ñoo ko gisandoo pétition boobu wax na mën a tax ñu exclure ki nga xamante ne ni moom moo di l'ancien président bu Sénégal di Macky Sall. waaw man sa man da man pétition boobu sax damaa amaat beneen information bu ma ci jot doo xamul ndax finalement du xaw ma wan moo ci dëgg. Mm-hmm. que dañ ma envoyé benn benn note wax ne voilà c'est ça donc je vais dafa mm-hmm. saaga lu mu saaga nag du ma ko lire euh, daf ne fake news encore. Mm-hmm. Euh, mu wax. bàyyi leen affaire mooy bàyyi leen wax bon bàyyi leen fen la wax mu ne je viens tout de suite de raccrocher avec les organisateurs ça le sénégalais d'Allemagne bon xaw ma ndax dëgg la. waaye on parle de fake news. na nee man xaw ma daal. xam nga bu dee femme bi nga xam ne moom la ñuy wax moom. li wax lancé na pétition mais waxul ne. waaw euh, tere nañ ko peut être waaw tere nañ ko. xam nga bu dee man bu dee da ngay wax ci lu loo njort de leerul la. da ngay nekk dans dans je pense que. non di nekk fii yàpp naa wala parce que bëgguma bëgguma juum wala may toll. Ah. waaw leen daa xam naa ko euh, Macky dafa war a dem ci benn université ci université Columbia mu war a fa suma ma juumalee bokk ci ñi addu. Mhm. ci ci ndaje boobu. Mhm. Euh, soxna soosu ne moom euh, bëggul mu fekkee ko mu yëgal ko waa. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñiy organiser